Sall dem gi mu dem Qatar loole naka prétexte la ngir nag mën a gisante ak Karim Wade ndax jamono ji nga xam ne moom la ñu toll ci lu jëm ci wàllum politique maanaam mbir mi tàng na jër te am na si Karim Wade bi nga xam ne tamit ñoo ngi koy waxtaane loole lépp boo ko boolee bokk na ci li tax gars yi njortu ne ab prétexte la njiitu mi di wuta ngir nag jege Karim Wade Abdou Thiam bokk PDS bokk si ñu yor communication PDS moom daal nay wax ne yàggatul dara Karim Wade dina ñëw ci réew mi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Abdou Karim Fofana bi ñu dénk wàllum commerce moo demoon ca assemblée nationale ngir nag ñu daal di koy votel ab budget ma waaye gars yi yekk nañu ko musiba ak mbelengaana ba pare yuuxaloo ko daal di ko fay génn bàyyi baa Abdou Karim Fofana bëggee jël kàddu gi ci la député opposition bi génn assemblée nationale yéen kaay gi de Le Quotidien nee na nag lu jëm ci wàllum wàññi gi loolu nag dee leen ko dégg rek ndax bëri nay commerçant yoo xam ne dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa ndax ñoom nee na mën mënuñu daal jënd sunu marchandise ba pare di jaay di perte ñoom nee nañu mënuñu ko yéen kaay gi de La Tribune nee na en tout cas li am ba borom boutique yi ñoom dañoo lànk ba naaj wa bañ a ñi li nga xam ne mooy njëg yi député Woré Sarr ñu xëy fekk ko ci journal bi démb ci assemblée nationale daal nay weddi na gouvernement bu Sénégal ci lu jëm ci wàllum wàññi gi Mame Diarra Fam di ko feemu ak di ko dëggal ak di confirmer di wax ne diw gi ñaari salaamaaleykum wàññiku si yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum borob Sénégal yokk na genn xeetu yokk goo xam ne maara détaillé journal bi di enquête nee na ca diwaanu Kolda foofee détaillant yi borom boutique yi ñoom dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa wàññi li nga xam ne mooy njëg yi waaye tamit nee nañu dinañu amal gerewu ñaari fan dañuy tëj seen i boutique yéen kaay gi di réew xëy di ñu xibaar naa ñu dafa am benn centrement bu tudd Didier Badji kookee nag inspection générale d'État la nekk ak Fulbert Sambou nekk direction des renseignements militaires ñaar ñii samedi ba léegi kenn xamul si ñoom dara bu ñu sukkandikoo ci procureur yéen kaay gi nag nee na marine nationale ak sapeur pompier dajale nañ leen ngir nag ñu daal leen di wër yéen kaay gi di la témoin nee na yokk si police scientifique la réveil quotidien xëy samp ab laaj nee na centrement bii di Didier Badji Fulbert Sambou ñaar ñii mbaadu dañu leen a rey wala dañu leen a enlevé loolee ab laaj la yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na ñaar ñii nga xam ne sam ni ba léegi kenn gisu leen kenn xamul si ñoom dara enquête bi daal ma ngi jëm ci disparition volontaire maanaam ñoo xam ne daal fa ñu nekk ñoo fa bàyyi seen bopp ndax nag na ñu ne ñii tudd nañu leen ci lu jëm ci mbiri Pape Alé Niang ndax am na benn gendarme boo xam ne teg nañu ko loxo yéen a gi di bés bi nee na Didier Badji ak Fulbert Sambou bi leen gars yi localisé maanaam ci wax yi ci buntu tefes gi ca Cap seeni dalla ak ñaari téléphone yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy diñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko démb jano nañu ak taskatu xibaar yi Sonko wax na ci lu jëm ci mbiri Pape Alé Niang ak enquête interne bu gendarmerie Ousmane Sonko nee na bu dëgg dee dëgg moom la ñu waroon a njëkk a wolo ndax moo si njëkk a wax ka Pape Alé Niang lan moo tax jàppuñu ko yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Déthié Fall nee na Macky Sall li mu deful kaso moo tax muy jàpp nit ñi rek di leen di dugal ci kaso bi yéen kaay gi de la témoin njiitul Pastef moom nag nee na Macky Sall daal dóor askan wi répression la la fi nekkee ba pare lu jëm ci wàllum yoon ci réew mi ak liberté yi loolee tamit Macky Sall daf koo daal di naxasal yàq na alalu réew mi moom Macky Sall mambay ñaam mii nga xam ne moo nekk assemblée nationale neen kenn épinglé ko ci lu jëm ci vingt-neuf milliards yu Prodac mambay ñaa waxul dëgg kàddu yu Ousmane Sonko la Ousmane Sonko démb daan nañ liir li nga xam ne mooy rapportu inspection générale d'État moom Sonko nee na Mamour Diallo mi nga xam ne moom lañ tuumale 94 milliards te of nag wax si lu leer naññe wax na nañu ko topp Mamour Diallo moomee la ñu jël ko ci biir yéenekaay gi nee na Macky Sall respecté wul askanu Sénégal waaye nag lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat ñoom nee nañu loolee duñu si wax ndax bu heure ba jotee askanu Sénégal dinañu ko lijjantil seen bopp yéenekaay gi di enquête nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag dañoo njort ne boo muytuwulee basculement mën naa am ndax jamono ji Sénégal ma ngi ci guddi yu lëndëma lëndëma ndax jàpp gi nga xam ne moom la ñuy jàpp gaay di leen di dugal ci kaso bi ma ngi mel ni tulleeg màlle troisième mandat bi ñoo ngi koy ŋawta ŋawtee lu jëm ci wàllum dund gi nga xam ne dafa metti ba maara de taali Khalifa Ababacar Sall nee na ci réew mi problème yi dafa bëri l'info moom Khalifa Ababacar Sall nee na Macky Sall nag war naa fàttaliku démb ku ne waroon a tëj Pape Alé Niang ba mu des Macky Sall ndax fenn fu nekk Pape Alé Niang féete woon na fa Macky Sall yéen kaay gi di 24 heures xëy di ñu xibaar naan ñu secteur primaire bi liggéeykat yi xam ne ñoo nekk ci wàllum napp gi ak wàllum mbay mi ak wàllum sàmm gi jamono ji mer nañu lool lool lool mer nañu lool en tout cas li am ba yoo xam ne ñoom nee nañu ko dem ci ab grève waay ko Koyaate ñaar ñii nag dañuy forfait ci match bi nga xam ne moo war a dox diggante Sénégal ak Qatar ajjuma ji nga xam ne moom la ñu tëg ma la yéen kaay gi di Stades xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba de sall sunu axe bi war nañu ko régler maanaam Kalidou Koulibaly ak Abdou Cissé li mu joxeegun baaxul la Edouard Mendy journal bi nee na moom la ñu joxar bi baaraamu tuuma ne moo def girawali ak njombe ci match bi doon dox diggante Sénégal ak Pays-Bas Edouard Mendy mi lan moo ko dal loole la journal bi xëy di laaj l'observateur ne Edouard Mendy